سلام قولا من رب رحيم أهل مكة المكرم وأهل المدينة المنارة الوادي الأنصار مهاجرين يا أيها الذين bismillah may ñaan yàlla ndigal di julli ci rahmaani rahim rahmaani rahiim mooy arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina di waxtaane koo xam ne nii ay mbiram yàlla moo ko jafal di waxtaane koo xam ne nii ay mbiram yàlla moo ko yëkkati ndax xam ngeen ki may a waxtaane addina nee leen xerewlu ma jiitu na sama juddu ak mbaaxam jiitu sama askanu baay ak sama askanu maam mboolem lu yàlla bind ci diwaanu lawliyaa yi signature bay asan salaama nga ca loola moo waral guuri yàlla yi ku nëbbu sa baatin mu joxoñ ko wan la ciy mbir billaayi walaayi àddina te ngeen koo delloo njukkal te xam ne ka daan wax wéy na tey waaye baatinu maam asan salaam du fanaan mel ndax xajul ci biir suuf ngir askanam maa ngi leen di laaj yéen waa àddina ndax ku mel ni góor gi mas ngeen koo yëg ci seen ug dundu ku ko xam baynal masriqi wal maghribi ñëwal wax ma ko man mii nga xam ne may kanuk tamsir wallaay billaay diggante njaareem ba ndakaaru foofi dem ñu waxtaane ay mbiram sëriñ asan salaam malaaka alul jannate xam nañu ay mbiram ngir jegeem àddina billaayi wallaayi am ngeen dimbal ndax góor gi wàcc ci seen kaw ndakaarook bar sàq soriwul ndax góor gi da daan baagante tey waxtaaney mbiram waa bar sàq te ngeen a nuyu góor gi waaye bu leen ko jox ndax sañu leen ko àttanu leen ay mbiram ku nekk ci kaw suuf di dimbali waa bar sàq bu jiitalee waa àddina jox nañ ko cëram ruubu maam asan salaam ma nga aju ca ruubu suñu borom ngir leer ga la kenn attanul bar sàqu maam asan salaam dañ ko ber wallaahi billaahi ndax kenn du wéttali ko kanam ku dem ca xadara maam asan salaam fa mu tëdd xam ne suufu njaareem billaahi wallaahi am nga ndam ki ñëpp doon xëccoo wallaahi billaahi yàlla jël ko def ko muy leeru njaareem sëriñ tuuba la yàlla feeñal ab jëfam ci maam asan salaam wallaahi ku dem ci marché di wut tisi bu seer ba dajeek sëñ asan salaam ñibbil te xam ne am nga njëg gaañi nëbboon seen mbir kenn ku nekk di nelaw yéena la wax la say mbir góor yi yàlla yi toogoon ci ruq yi kenn ku nekk yi waxtaan ak sa bopp sëñ Assane Salaam wax na la say mbir Tiwaawan Njaasaan cene ba bàyyi laay bu kenn waxtaane mbiram te laajoo ndigal ndigalu bay asan salaam kenn na koy joxe muy xadratul malikul ala góor ga nga xam ne feeñ na billaahi wallaahi ci dundam lu ëpp ñetti yoon diggante Makka ak Misra wallaahi billaahi ak réewum France ñëpp xam nañuy mbiram sëriñ asan salaam daan na wax naan sama leer kenn attanu ko lu dul suñu borom mooy ki ko xam sama leer lañu tàbbal ci ndox wallaahi sama ndey jukki ko naan ndox ma ma feeñ ci àddina ngir ndimbal daan na wax naan fi ngeen jaar jaaruma fa ndax yàlla dama berber sama guru loola moo waral kuy dem bar sàq su la séenee lu weesu ñeen fukki guddi ak lu ko jiitu ma xam sag dem sëriñ asan salaam da a xamul yéen waa jamono waaye bu ngeen xamoon def ko jublu waaye girgéem ca moom bennub joxoñ la góor gi am wallaay ibilaay mooy ki fonk way juram te wéetal boroomam ku daawul téye koppar du ànd ak ku yor koppar ngir wéetal boroomam bàyyi sëriñ aadama salaam raw nga góori yàlla yi ndax xadara yàlla da nga koo miin ngir ay keram mboolem keppaar ya jëm ca rafiqul aala bilaay walaay koo ci masa wax ay mbiram du ko weddi bilaay xanaa yëgu leen na rafiqul ala manque si awuru suñu borom yi asan salaam xam na seeni cër bilaay walaay daan nga nëbb say mbir ba ñëw toog ci sa wet walaay baa nga toog ci wetam mu naan la man du tax ma wax xanaa yëgu leen ne dañ may wax loo waaye buñ ma wax loowul du tax ma wax tee ngaa ñëw te jege bay asan salaam daan nga def ci wetam ñetti waxtu mbaa ñeenti waxtu mu toog ba yàgg ne la tàllal ma ñaanal la nga dem xanaa gaañi ko ragaloon dañ koo ragaloon a jëmm ja waaye bilaay walaay jarta ragal ndax daan xettalee xettali na ba doole miskin jirim xettali na sax wàlliyu ngir xam ab cëram sëriñ Hasan Salam dara feesul woon bëtam lu dul baatu laa ilaaha illallah ak julli ci yoneen jël nag njabootam nandal leen ci siraatal mustaqim nuuraani yaa ngi baa ngi fit wallaahi du fi jóg ba faaw ngir ak karam sëriñ Hasan Salam jantum njolloor tiimu la bilaay wallaahi yaa lewet mel ni dugub xanaa yëgoo ni bilaay wallaahi dugub bala ko yàlla toj ci biir suuf da koy jox ngir ay mbir mbiram sëriñ Assane Masta wàcc ci wenn keppaar lu dul wàllu wa fa fanaan ñëw na nuyu ko ngir bañ mu feeñal ay mbiram ku weddi laajal góori yàlla yi mu siqaloon réew mi maam Limaamu Laay wax na ci moom ay mbir walaayi bilaay wax na ci Cheikh Tidiane Serif ay mbir koo xamul kooku waajal yoon demal waaj te laajte kan mooy Assane walaayi bilaay walaayi dégg naa mu wax ne wàcc na gaarub cene ba sekk am soxna su doon njëkkanteeg moom saxaar gi jël tànk ndey ngir njëkkante ngir jël place Serigne Assane naan ko tee ngaa wàcc xanaa xamoo njëkkante wóorul ndax fa nga jëm xamoo ndax daa yeggam déet tee ngaa delluwaat seen dëkk nga jéem a lijjanti bay wañ la tudde woon ndax ba tey sa baay fayagu ko soxna sa daw dellu këram daje faak baayam bu ndaw te naan ko am na lu xew dama daje góor koo xam ni dama doon njëkkanteeg moom sa xaar gi mu ne ma wàccal te lijjanti sa bayub tudd ma saa baay dama la doon laaj ba xam man mii bi ñu mooy tudd bay wa marayaloon fay na kom ndéet baayam bu ndaw bopp naan ko demal tuubaatul te lijjanti ko ndax jamono yooye sa baay daa néew doole loola mën naa ne mu dem di ko lijjanti ba yëg nag baayam fayagu ko mu dindi ñetti junni ca yooye jamono fayal ko boppam Sëriñ Asan noonu def ruuy wallaahi bilaay lislaam bi leer ga dem na tey crise mondiale bi am tey ji ak safaan bu jóg wala balaa wàcc ci réew mi ana lu xew ka daan defar wallaahi bilaay ak di défendre dëddu na tey wallaahi ruuwam du tàggoog ñun xanaa yëgoon sax boo tuddee turam mel na ni ruuwug jax ci kaw suuf ndax da daan teen ba yàgg ne alaaji tafsir fayal nuyoo far jaar na fi léegi ànd ak jibril wa aleyka salaam ya alayhi salaam ku jóg taxaw màggal góor gi yal na nga féete kaw bay sëriñ Asan leen salaam wallahi billahi def nga leeru nuuré ni wallahi billahi am nga ndam ñun ñi woppoon sax wér nañu ngir sa dem gi tey jëpp jaaxle nañu tey wallahi billahi dañuy rappoon